est-ce que xam nga secret yi nga xamante ne julli fajar am na ko ñu bëri dañuy julli fajar wala sax dañuy sàgganee julli fajar te xamuñ ngëneel yi nga xamante ne ak secret yu mag yi nga xamante ne julli fajar am na ko avant loolu su fekkee abonné ku nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko mënee partagé ba keneen mën see jëriñu nga partagé ko salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di sàkku si yéen tamit ngeen di aimé vidéo yi parce que su ngeen koy aimé mooy tax YouTube di def vidéo bi muy gën a sori ñeneen di si mën a jëriñu kon boo gaay bu leen fàtte di aimé vidéo bi laataa ñu continuer du ma dañ di leen présenter sama partenaire ñu koy wax Sissoko Habbatu Sauda Sissoko Habbatu Sauda nekk koo xamante ne day yëngatu ci wàllum médecine prophétique. nekk médecine boo xamante ne bu am solo la ñu maîtriser lool li nga xamante ne moom la ñuy wax xabat sawda xabat sawda nag nekk loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee lay faj ba des dee ñoom nag macha allah maîtriser nañ ko lool feebar yu bëree bëree bëri ñoom yàlla mel na leen ci xam-xam ni ko wàllum deret ak ay feebar yoo xamante ne maanaam sa yaram di métti wala yeneen feebar yu bëree bëri yoo xamante ne soo demee soo leen gaaralee sa feebar ñoom yàlla dañ leen ci may solution incha allah kon ciseaux xabat sawda seen wér yaram moo leen tax a jóg kon mbokk yi mënuñoo continuer te ñu leen remercier maanaam caméra bi nga xamante ne waxoon nañ ñu jënd ko macha allah yàlla def na mu mat nit ñi jënd nañ ko si jàmm macha allah utiliser guñ ko nag parce que dañ koo jënd dafa laaj yeneen ay réglages yoo xamante ne war ko see def mais daal amul leen luñ leen woo mën a wax lu dul yàlla leen yàlla fay yiw te barke leen parce que gis nañ taxawaay bi nu si nit ñi jàppee nu amee solo macha allah yàlla leen yàlla fay yiw julli fajar dafa nekk loo xamante ne lu am importance la mooy julli bi nga xamante ne premier julli bi nga xamante ne mooy farata ci julli juróom maanaam journée bi da ngay am julli juróom juróom yi nag bi nga xamante ne mooy bi si kaw mooy julli suba moo tax ñu bëgg leen a wax secret yi nga xamante ne ak bénéfice yu mag yi nga xamante ne yonent bi sa alayhi wax na ko ne moom la am ñu bëgg leen koo waxal tey julli fajar nit ki dafa war a xam ne julli fajar maanaam julli suba farata la ci bépp jullit góor ak jullit bu jigéen su nekkee koo xamante ne ku wér la mat sëkk maanaam âge bi nga xamante ne su ko tollee yàlla dogal na ci moom mu nekk mu kallaf kooku julli fajar dafa nekk farata ci moom julli fajar boobu ma lay wax yonent bi sallallahu ci la wax ne julli fajar mooy julli bi nga xamante ne ak julli gee ñooy julli yi nga xamante ne moo gën a diis ci kii nga xamante ne moom la ñuy wax naafeq naafeq maanaam du julli fajar du mën a julli gee parce que dafay diis lool ci moom parce que julli fajar dafa nekk heure boo xamante ne heure boo xamante ne heure bu neex si ñëpp la parce que heure boobu yaa ngi ci diggi nelaw fala nelaw gën a neexee yàlla woote ne xayya ala solaati xayya ala falaa qad qaamati solaa qad qaamati solaa nga bàyyi sa lal bi nga tëddoon dem jàpp fekk mën naam dafa seddoon nga dem jàpp ci sedd bi dem jumaaja dem julli loolu képp koo xamante ne ni ko julli piir doo ko mën beneen bi mooy julli gee julli gee tamit heure bu neex a dal loola parce que tamit heure boobu heure dalu la aussi tamit guddi na kenn du la gis booy ngistal soo moytuwul nit ñi duñ la gis moo tax ñaari julli yooyu noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moo gën a diis ci naafeq julli fajar ba tey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi wax ci benn xadis mu ne képp koo xamante ni dafa julli gee ci mbooloo mi ngi mel ni ku taxaw guddi gi xaaju guddi gi maanaam comme ki nga xamante dafa taxaw xaaju guddi gi di ko julli mu ne ki nga xamante ne dafa julli gee ci mbooloo ma noonu lay duroon mu ne nag ki nga xamante ne dafa julli fajar ca mbooloo ma mi ngi mel ni ki nga xamante ne dafa julli guddi gi yëpp maanaam ku julli guddi gi yëpp tiyaabo yooyu muy am incha allah su fekkee yow julli nga fajar ci mbooloo ma tiyaabo yooyu yàlla dina la ko bindal mu nekk loo xamante ne lu am solo la nekkul loo xamante ne dañ koo war di ko sàggane wala di ko bàyyi ginnaaw mu nekk loo xamante ne dañ koo war di def farata la ci ñun ñëpp ñu bëri nag dañuy jaawale li nga xamante ne mooy julli suba ak julli fajar dafa am différence bu ndaw waaye bokkuñ julli fajar suñ ko waxee mooy ñaari raaka yi nga xamante ne moom la ñuy njëkk a julli laataa ngay julli julli suba boobu nag nekkul li nga xamante ne mooy farata waaye sunna mu akkada la maanaam sunna boo xamante ne bu dëgër la yonent bi sallallahu da koo digle mais ñaari raaka yi nga xamante ne mooy suba moo nekk farata mais nag ñaari raakay fajar yooyu noonu dafa nekk gëneel yi nga xamante ne gëneel yi mag a mag mag ndax yonent bi sa alayhi mi ngi wax si beneen xadis mu ne rakkaatay li fajri xayrun min ad dunya wa ma fiha mu ne ñaari raakaay fajar de moo gën addina addina ak lu mu yaatu ak lu si nekk yëpp mu ne ñaari raakaay fajar yooyu noonu de moo gën àddina ak ci biiram kon mbokk yi mu nekk loo xamante ne lu am solo la lool nit ki warul di ko bàyyi chaque jour da ko war di def su ko mënee beneen bi mooy nit ki dinaa la ah man de moo fa dëgg yàlla damay bëgg a julli fajar waaye man damay nelaw heure boobu noonu du ma xam sax lu tax may nelaw damay régler alarme mais du mën a yeew kooku am na benn waaj ñëwoon si yonent bi sallallahu loolu yonent bi sallallahu alayhi ko seytaane moo ñëw si moom saw si nopp bi maanaam seytaane mooy tuur ndox ci sa nopp bi kon nga xam ne nit ki nga xamante ne bëgg naa yeewu fajar mais mënul yeewu parce que ay nelaw wala yu mel noonu na xam ne seytaane moo tuur ndox ci noppam balaa moo tëdd nay musli seytaane te xam ne seytaane moom képp ku nekk ci yow lu baax doo ko mujjee te ngay jéem a góorgóoru pour julli fajar parce que nekk na loo xamante ne lu am solo la lool yàlla fonk na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit fonk na ko mu nekk lu am doole lool ci lislaam bokk na ci gënal yi mag ñi nga xamante ne julli suba am na ko maanaam boo jullee fajar pare ñaari raaka yi ñu ci teg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci benn xadis mu ne ñaari raakaay suba yooyu noonu de soo ko jullee yaa ngi ci kaaraange yàlla maanaam yàlla moo la garantil ne dina la aar ku la jéem a liggéey du jàpp ku la jéem a njabar du jàpp ku la jéem a du jàpp maanaam képp koo xamante ne yéena la lu bon du jàpp incha allah parce que yàlla moo la garanti yow yàgg yàlla da ngeen def accord yàlla garanti la beneen bu neex tamit mooy malaaka yi nga xamante ne ñooy wàcc guddi gi maanaam di nekk ci guddi gi ci àddina bi ñoom si heure fajar di jot ñoom si la ñuy yéeg bu ñuy yéeg malaaka yi nga xamante ne ñooy monté ci bëccëg gi ñoom tamit heure boobu la ñuy wàcc léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo yéegoon ñoom bu ñu demee ba si kaw yàlla da leen di laaj te yàlla moom moo gën a xam mu ne leen naka ngeen bàyyi sama jaami yi ñu ne ah sa jaam yi de bàyyi nañ leen ñu julli fekk ne boobu heure fajar jot na ñoom ñu ngi julli macha allah mu nekk témoin boo xamante ne témoignage bu am solo la lool bu rafet la bu tamit bu wóor la te aussi tamit bu dal xel la te tamit beneen bu neex mooy julli fajar képp koo xamante ne saxangoo ko yàlla dina yokk sa wërsëg maanaam julli fajar bokk na si mbir yi nga xamante ne day joxe wërsëg beneen mbir bi nga xamante ne julli fajar da koy joxe mooy yàlla dalay sàmm maanaam da ngay nekk ci kaaraange yàlla ba kenn du la mënal dara troisième secret bi nga xamante ne julli fajar am na ko mooy malaaka yi dañ lay seedeel lu baax fële ca kanamu yàlla quatrième secret bi nga xamante ne julli fajar am na ko julli fajar bokk na ci mbir yi nga xamante ne day muccal nit ci safara juróomeel secret bi nga xamante ne julli fajar am na ko mooy yàlla dalay muccal ci li nga xamante ne mooy mbugalu safara ba pare muccal la ci meram kon mbokk yi joxañ la juróomi secret yoo xamante ne julli fajar am na ko fi lañ ko yemale mais julli fajar ëpp na loolu fuuf ci ay ngëneel bëri na ay ngëneel lool lool lool lool loo xamante ne am na si solo kon mbokk yi fi lañ yemale vidéo bi ba beneen yoon di leen fàttali nag su fekkee abonné goo ngeen di abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko manee partager tamit ba keneen mën say jëriñu nga partager ko salaamaaleykum